sa jama neem ñaa gaynde fuga anas tuub la voix d'or real love purchase your tracks today waaye di bëggee képp ku nga xamante ni da ngay suivre site bi di xibaaru Bambouk ñu ñëwaat ak yéen saa su ne ci émission bi ñu naan toog teg ngeen ci ànd ak seen doomu ndey seen xarit Normal Diouf may nuyu di siyaaraat képp ko nga xamante ni moom ñuy bàyyi xel di ñaan jàmm di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi nga xamante ni mooy réewu Sénégal di ñaan lépp loo xamante ni nar na xew te du jàmm yàlla na ko yàlla fànq jiital jàmm ki jiite yàlla nay def jàmm yàlla na jàmm rek di xew tey ma ñëw toogaat ak benn ndaanaan ci sama émission bi ñu naan ñu naan toog teg ma duggaat biir teg jéego jël fa benn ndaanaan koo xamante ni nit ñi ràññee nañ ko ci wàllu rap koo xamante ni yàgg na bokk na ci ñi nga xamante ni fonde nan tim bii di teg jéego parce que bokk na ci nga xamante ni man njëkk naa leen fi xam muy ki nga xamante ni mooy Niang Gaindé laata muy sori dama koy bàyyi mu nuyoo nuyoo askan wi nuyoo képp kuy seetaan xibaaru bamb Niang Gaindé maa ngi lay dalal. waaw maa ngi fay normal Diouf waa di nuyu waa Koungheul yëpp di nuyu waa xibaaru Bambuk ak ñëpp ñuy suivre waa xibaaru Bambuk aussi waaw. waaw gannaaw nuyoo siyaar ñu lay fay ñuy laaj benn question boo xamante ni ni ma ku ma dalal danaa la ko laaj parce que nit ñëpp dañ koy bëgg a xam ñaa gaynde gars yi dañuy yor benn benn tur ci rab quoi mag dégg ñu lay woowee ñaa gaynde ñi naan soldier mu bëgg a xam ñaar yooyu la lan ma ko waaw question boobu waaw am na solo man sama tur artiste soldier la quoi soldier of to edge quoi soldier of to edge loolu am na ñu bëri ñoo xamante ni tout etch bi duñ ci yegg parce que peut-être comprendre luñ tout etch boobu lan lay signifier mais peut-être puisque tey am na occasion pour leeral la ko gars yi soldier of the earth soldier comme ni ñu koy waxee soldat en en français ñun kii ko traduire ko def en anglais def ko soldier euh, to earth mooy double H quoi maanaam. Mm, hip hop quoi hip hop boo waxee hip hop day am ñaari H quoi léegi au lieu que ñu nekk di wax naan soldaaru hip hop day xaw a kii léegi ñu ne xaaral pourquoi pas ñu def ko def ko mu nekk anglais def ko forme contracte comme genre soldier of two etchi two etchi bi day signifier i hop quoi loolu lay signifier léegi nag ñaa ñaageeni bi aka que man ñaalaa sant et que eh, gaynde bi buñ koy wax parce que critères yi mu ngi ci man du ma dugg loo xamante ni su ma si xasee dugg amul reculer genre moo tax ma indiqué sama bopp léegi euh, très souvent sax ñaa gaynde bi moo gën a moo gën a moo gën a moo gën a moo gën a siiw ñaa gaynde bi moo mais Souldier of the Edge la aka Niang Gaindé tur boobu danga nga codé tur bi dafa am sëda moo ci biir ah nice mu doon loo xamante ni rafet na en même ñi nga xamante ni umpoon na leen comme mana leer na ci ñoom mais ñëwaat ci beneen question Niang Gaindé lan moo la dugal ci rap waa man nag li ma dugal ci rap euh, ay xarit la rek parce que tey maa ngi rappelu ba ñuy doog a commencé hip dama amoon ñaari copain ku ñuy wax Indi euh, ak euh, Bopp Mike auparavant ak euh, benn gars bu ñuy wax Petit léegi ñoom dañ doon def ay playback ay son ay sonu kër gi quoi léegi sonu kër gi moment boobu noonu waa kër gi kuru ñoom ñu ngi nekkoon à trois léegi te ñoom ñaar leen woon et que manax ñoom ñoo doon ànd léegi un jour ñoom ñu am benn ñu am benn programme bu ñuy war a dem je me rappelle benn kii euh, Fosco la mooy école primaire yi kii seen semaine de lécole école baat ok léegi ñoom trois lañ war a nekk. ah comme ñoom ci kër gi. waaw kër gi lañ ñoom kër gi lañ doon dañ ne play back kër gi. léegi léegi ñu ne ma ñaa kañ dem xaw nga nekkal ñi euh, je sais pas yaakaar naa caat léegi keneen ki nekk moo laa keneen ki nekk kilifa quoi. man boobu xaw ma sax ak ni ma demee man tamit ma obligé puisque samay gars yi la ma dem mais au fur et à mesure ñu nekk ci si lool noonu tamit man tamit commencé di leen fréquenter loolu mu bokk na ci li ma dugal si euh, rab quoi waa kër gi ñun parce que boobu moment boobu ay melomaan leen woon surtout ay fan si kër gi kuréel leen woon quoi wax yàlla. waaw ñuy doon ñoo xamante ni ràññeeku nan lool ci wàllu Galsen quoi Sénégal doo fi tudd te tuddoo waa kër gi seen histoire marqué na trop léegi yow ci nga dem toog. xalaat ni da ngay def son wala booba léegi da ngeen continuer woon nekk kuru yéen ñett. waaw après dañu mujjee nekk kuru euh, tuddee ko diwaan ji kuru diwaan ji kuru cest ba léegi euh, kër gi ñu ngi ñuy influencé xam nga kër gi kuru lañ leen wax léegi à chaque instant ñu ngi nekkoon trois à chaque instant ñooy nekk benn kër boo xamante ni tey. Euh, di si profité wala di wax waagaan yàlla na suuf oyof si kawam parce que ñun ñoo nekk ndoroo woon këram lañ doon fréquente chaque jour maanaam moom ak indi chaque jour chaque jour après léegi ñu ne pourquoi pas puisque ñu benn diwaan la ñuy nekk quoi léegi benn kër la nekk léegi ñu xaw ko def moo boobu xaw na taalibe bi quoi ñu def ko diwaan ji CROO auparavant boobu nag euh, groupe yi wax fa dëgg yàlla demeewul woon nii boobu ñu nekk njëkk na nekk boo yu fi njëkk def rap sans boobu noonu wax fa dëgg yàlla marqué woon nañ suñu empreinte parce que moom moment boobu noonu ñu koy def gars yi su bëri xamoon nañ Diwaan Jukuro foofu looloo tax ñu créé woon Diwaan Jukuro man nekk après si laa nekkoon membre Diwaan Jukuro tamit si laa nekkoon. la loolu quoi. ndax ngeen ngeen dundee ndax ngeen ngeen <laughs> waaw loolu moom dina ma dina ma reetaan parce que tamit yomb woon quoi boobu son sax mënuñ ko am wax dëgg yàlla dañ doon assurer nag parce que dañ doon dem programme da nga doon répété pour def live and direct live and live and direct teg sa but tegu si euh, boobu je me rappelle dañ doon dem di jënd ay bit si di jaxaa di jaxaa daf ñu doon jaay ay bit euh, euh, deux 2S waaw di ko nuyuwaale de passage moom boobu muy doon liggéey ñun ci benn genre logiciel bu ñuy wax Audacity si lañ doon def ay son quoi ñun loolu lañ jàppoon suñ son boobu ay studio ñun nanduwuñ loolu studio am na mais boobu ñun suñ secteur fii. ku fi am son studio dañ leen di ko noonu quoi waaw mais effectivement. waaw te te dañ doon assuré boobu nag boobu boobu nag la kii bi gënoon a yomb quoi wax dëgg yàlla job bi parce que boobu noonu gars yi da gis ne sant na bi day liggéey quoi parce que day bëgg bu demee programme bi ko live and direct te te da ngay foog ni day wàcc sax. nga foog ni son la dóor wala nanga parce que bëggoo fa da ngeen ki répété da ngeen loolu noonu ko affaire bi yomb na quoi léegi moom wax dëgg yàlla booy ñu ngi si dal dal neen ci quoi par rapport ak ñun. ah mu doon loo xamante ni yaa ngi expliqué yow fi nga démarré fi nga jógee mais ci côté démarage bi amoon amoonul benn problème boo xamante ni seen seen wàllu kër sa famille say parents ñoo xamante ni bëgguñu woon saalu rab bi quoi. man nag euh, man bizarrement nekkuma woon ak euh, sama famille maa ngi woon ak ñoom mais sama kër maam laa nekkoon yu si bëri dama doon def di nëbbu genre mooy loolu mais sama côté papa sama côté yaay finalement dem leen ba mosuma ci wax lu ñaaw wax dëgg yàlla dañuy dem ba sans benn sans dañuy dox ci mbedd après ñu ne leen sa ah sa bi day nangam sa doom bi day nangam finalement des fois sa sama papa dafa di ma wooyee ñaa gaynde sama yaay aussi des fois su ma génnee son dama koy envoyé mu ñaanal ma yàlla li nga ci bëgg yaa yaa xam yàlla na wax yàlla defal sama papa léegi nëbbu tootu ma ci quoi wax dëgg yàlla mais bu njëkk ñoom yëguñu dama ko doon def. ñuy dox ci mbéy parce que nekkuma woon ak ñoom quoi. waaw. waaw. waaw loolu xaw na yàgg te lu ko du question dañu dem sax mais dañu dem ba benn sens sama copain boobu waagaan moom dafa dem Kaffrine jàngi man maa fi nekk. indi dem Dakar liggéey léegi ñu nekk si maanaam nu ñu séparé woon noonu affaire boobu euh, dem moo dem ba euh, indi indi kii bi quoi euh, carrière solo bi parce que moom après ku si nekk yaa ngi toog dinañ ñu ngi gisante ñu ngi déggante genre mais bëriwatul moom mu ngi toog fee def étude am man maa ngi fi def samay étude aussi moom indi euh, mu ngi fële di euh, business euh, business am quoi Dakar looloo looloo tax moo dem ba tas bi groupe bi quoi waaw dañu am problème waaw ok waaw ok waaw. nit bu dee dund rap même bu génnee fu man di nekk bu dee moom kase loolu bëgg-bëgg waa day teewal quoi léegi ñu ñu dox ñu dem ba si kanam dégg ñaageen benn tim teg jeego naka la loolu demee naka nga doon jóobeeg sa bopp ba mu yàgg nga duggaat ci wàllu tim quoi nekk biir Tek Diego. waaw Tek Diego tey euh, man ak euh, tey Zed moom moo créé Tek Diego man moment bi mu koy créé sax mu fekk Dakar parce que moment boobu man daxaar laa féetoo woon waaw ba muy créé loolu après moom tamit mu contacté man na ma ah dañu dama dañuy créé fii benn groupe tuddee ko teg Diego naa te après man tamit gis na boobu moment boobu ñu ne ñoom xawoon nañ nekk ay concurrent parce que boobu moom moom mu ngi ci benn team mu ñuy wax Sella Mike ñun ñoo bokkoon même secteur affaire yi yombul woon quoi parce que boobu tamit des fois ñun ñu waaw classe daante moom xam na xam naa des fois am na benn instant si si am na kay am na je me rappelle am na benn fusco bu ñu invité woon kii GSB kii kii bi mais après foofu jour boobu waaw neen waaw ku si nekk yéeg après mais mais après ba loolu yëpp jeexee ñun moom moment boobu tamit ñun dañ ko doon def si fair play lépp si respect lay nekk après mooy loolu dañuy jëfante cas mais après du du du du déborder quoi après ba ma woowee nag euh, maa ngi Dakar mu woo mu ne ma. dañu am benn team bu après man tamit ma rafetlu ko parce que man tamit man ak moom xamante ne bokk nañ sekki ne lu bëri parce que bokk nañ classe bokk koñ bokk hip hop bu ñuy dee bokk leneen ma xam ne kii mën a xam moom mu ne ma ko ma jox ko sama accord fi ma nekk Dakar laa ko jox sama accord ñu commencé jóg après mu intégré ma biir Tek boobu sax si si man si si si membre fondateur yi laa bokk parce que boobu mën a xaw papa moom la ak papa Thiat après mooy loolu. benn gars yi moom dañ la wax rek yow nga d'accord xalaatoo ni maanaam tey kii parce que yéen ñaar da ni da ngeen nekkoon ay concurrent voilà da nga xalaat ni moom dafa bàyyi fu mu nekkoon ba tax ngeen doon classante ba nga am ci xel mu daal mu la rek nga d'accord nu mu demee xam nga bu fekkoon dafa ma woo na ma bëgg nga ñëw bokk Selemaay du ma ko def quoi mais dafa ma woo ne ñu bokk teg jéego te ma xam ne nii man ak moom aussi te moment boobu man tamit du du euh, soxla woon naa tim waaye boobu. amoon parce que man am naa habitude nekk liggéey ak team quoi léegi tamit sama team bi dem na ba séparé wu genre mooy loolu noonu ba mu woowee ci loolu aussi man a ah loolu de lu rafet la quoi te tant que affaire développement la euh, kon war naa ci mën a participer quoi parce que yàqul ci sama carrière dara te en plus tamit teg jéego comme ni nga koy waxee rek du du du du team boo xamante ni da lay tënk maanaam ñun dañ fay nekk ku ci nekk tey sol ji gis nga day def sangunu boppam sol kii Z la même chose ñoom SMT ku ci nekk day def sa sangunu bu ñu demee ba soxla son euh, comment dire son team bi dañuy woote na ah, war nañ def son nangam ñu def ko mais ñun tënkuñu kenn quoi maanaam comme genre label lañ ko def ñun maanaam mun ko si. nekkul benn crew wala. waaw du waaw. label la label la exactement tey ñu ngi ñu ngi ci quoi ñu ngi si lu ci bëri léegi yem na ko mais dañuy bàyyi ba mu gën a ba mu gën a ba mu gën a leer ñu doog ci wax quoi mais. comme comme loolu ñun suñu objectif yëpp loolu la quoi maanaam tey recruter ay talent ñu am talent ñoo xamante ni tey dinañu permettre tey tim bi dem dem fu sori wala genre mais tey comme côté cadre boobu bëgg naa ci leer du tim par exemple tey boo nee boo ñu bëggee eh, boo amee sa invitation nga def tey jéego après day xaw day xaw a kii quoi parce que imagine mënoo tey par exemple nga ne da ngay invité Reptile wala genre non comme loolu la ñun ñun suñ esprit loolu la quoi ñun tey. Euh, teg jéego bi comme genre Reptile Music comme genre Buzz genre ñun foofu lañ ko jàppee quoi tey boo soxla woon KBC kenn da nga naan ah ngaaka bu KBC laa soxla wala mat di wala ainsi de teg jéego aussi loolu la quoi tey ñun am na élément yoo xam tey ku si nekk rek mun na feesal Koungheul mun na woote gars yi wuy ku si nekk si ñun quoi moo tax tey loolu la quoi tey boo soxlee SMT mën nga ne ah man SMT laa waaw kay mais boo ne teg jéego yëpp laa éviter des fois si bëri artistes yu bëri ñu amoon ñoom problème ci loolu duñ dem après nga nga taxaw noo ñii ku leen invité duñ dem wala genre demeewul noonu quoi côté boobu boo nee Tek Djeko Yëpp laa invité day xaw a compliqué quoi pour pour ci biir ah, ci biir. Euh, comme ni nga wax dëgg yàlla man moom des fois dama koy wax <laughs> gars eh, lu bari kay très souvent dama naan leen man am naa chance boobu quoi. man non ga yi dañ naan juboo ñëpp sax mënul nekk genre mais sekk naa ñëpp jàmm maanaam tey tey ji man maa ngi koo xamante ni si artistes yi fi nekk yëpp ku si nekk sañ naa jël sama téléphone woo la wax la dara maanaam amoo problème boobu quoi munu ma ne ah comme par exemple ma ne tey normal rek non sekk nañ loo xamante ni non du ma ko ñemee woo wala tey par exemple benn saaw wala benn institut boo xamante ni. mënuma ko woo téléphone man amul ku fii amul ku mu mun woo prince ah, eh, amul koo xam man sañu ma jël sama téléphone woo ko ne ko euh, doxal ma service naa nga kaa ñu def naa wala soxla naa la. doon rafet mais dafa am benn affaire boo xamante ni muy sama xel bi tey tudd nga benn tur nga ni saaw da nga def ak saaw ay fit. saaw waaw saaw def neen ay fit def neen. waaw am na son yoo xamante ni am na boo xam moom moo ko defoon muy. doo si dal bi def na boobu featuring boobu euh, mu ngi ciy cumuler ay artistes yu bëri ay prince si la bokk grand art yombul quoi si yombul quoi sound boobu quoi waaw pourtant pourtant bu ko soxlaa dañ koy def de soo soo seetloo son kii bi euh, Coupe d'Afrique soxla wala nangam dañ ko dañ ko def son son coupe d'Afrique coupe coupe d'Afrique bi waaw bien sûr je sais pas coupe d'Afrique comme coupe du monde Ben Laden bokk na ci son boobu ay ñoom daas ay ay maire sax ñun bokkoon na ne ñoom quoi fii am na son suñu deuxième son bi dix dix dix artistes la ak benn pël boo xamante ni nga xam ni kon ñun amuñu problème boobu pour ñun ñëw ñu bokk son quoi. mais mais am na benn problème bu nekk ci biir parce que yow ak def ngeen ay fête mais bu yàggul. da ngay dégg moo peut-être mu am benn affaire boo xamante ni moo ngi koy expliquer ci seen diggante ñun aussi ñu soxla ci ay leeral benn ñaa gaynde bu jàppandoog saaw famille dat dama jàpp cong moo jàpp te boobu yéen a bokkoon fenn fu ngeen nekk lan moo doonoon problème bi ba ci biir gis nañ ci ay sound yoo xamante ni peut-être nee nañ yéen ñaar da ngeen doon kala santé en même temps si mooy yi ñuy dégg dafa joxe loolu bu ñu ko tegee ci wàllu rab lan mooy sa problème ci côté boobu yaag saaw waaw jàpp dat jàpp dat mu tombé genre mooy loolu xam nga rek ñoo waxoon benn team quoi moom moom moom fréquenté na biir teg jéego après xam nga rek li may wax nii ñu toog na am na benn affaire boo xam war nañ ko teg euh, nangam quoi mais dañ ko bëgg a def benn genre tournée xam ñu ñun tournée tey. ñun maanaam Koungheul bokk quoi bokk na si ñu fi njëkk def def tournée boo xam tournée départementale la dem si dëkk yi genre mooy loolu léegi bañ defee te ñu ne ah léegi pourquoi defaat bu ñu defaat bii léegi dañ koy def sous forme de par exemple tey ñu ne normal dañ koy moom dañ koy dañ koy indiqué moom moo moom moom mooy gérer zone euh, saali bi quoi léegi dañ naan teg jéegi présidente normal Diouf moom lañ Saly quoi waaw moom mooy leader bi mooy nekk représentant Saly après bu ñu defee ainsi de suite ainsi de suite yooyu si yooyu noonu si détails yooyu lañ nekkoon après ñu ne woon ba xam ne bu ñu koy tëj dañ koy tëjee Koungheul def ak euh, type bi yëpp quoi léegi loolu loolu dañ koy expliqué man moom la woon ak Zed si je me trompe waaw ñu toog expliqué si yooyu noonu quoi mais après. Mm, ñu toog ay quelques kii gis euh, benn genre affice boo xamante ni su ma mook euh, prince quoi ñu jàpp date quoi. waaw waaw moom xaw ma je sais pas lendemain non cinquième jour korité genre ou pas am na daal fa demee noonu ah, man man tamit man puisque ñun décidé woon nañ jàpp ñun suñ tim quoi décidé woon nañ jàpp sur lendemain man xam nga rek comme lu may wax comme tout tout affaire gaynde bi day ñëw ko man tamit ma ne non léegi manager bàyyi man ma jël jur kii bi sur lendemain korité euh, euh, bi quoi def ko tuddee ko ndéwénal show après daal yi ñëw man réglé tuma datam quoi. ok mais léegi ban problème moo amoon foofu ba tey bu ngeen di jàpp kenn mënoon ta wax sa morom bàyyil ba lii kii ni bàyyil puisque yéen yéen a bokkoon même benn euh, tim bu ngeen nekkoon di joobandoo lan lan moo doonoon problème bi wala dafa amoon benn problème bu ndaw d'abord. non man problème bi wax dëgg yàlla man man saaw maanaam lu ko jëlee biir te jéego carrément carrément man mënu ma ko expliquer quoi ama tamit mais daa xam naa ne loolu moom si la bokk quoi le fait comme ñaari date yooyu peut-être moom si la jàppee ne waaw mënul def mënul defal ak ñun ñun tamit ñu jàpp ne mënuñ ñoom après moom mu gérer ñu mu gérer mais man problème problème problème carrément ñun ak saaw man gisuma problème boobu quoi yaa. parce que moom moom nee na Tek benn collabo peut-être loolu la expliqué moom ngeen seqoon benn liggéey si tournée boobu tudd na ko Basi mu ne moom bu ngeen musoon dem fenn muloo moo doon neexal affaire yi. ay saay nañ nañ bàyyi naxante bi neexal. neexal xam nga man a ko jëloon pour bu loowee moom mooy neexal léegi yow yow yow yow non ban neexal neexalul dara mais xamante ne la moo tax ne nga ne neexal yow fii kenn ku nekk si ñun tim teg jéego bi bu ci gën a ndaw moo daax neexal saaw ça c'est sûr lu am nii laa lay wax Saaw. Saaw moom mooy neexal Koungheul ba léegi. <laughs> Saaw mais xam nga tamit wax yow mu mun a quoi Saaw lan la neexal yow ñun ñun parce que ñun ñun tey jii moom bu ne day neexal am loo xamante ni yow yaa ngi fi yow amateur nga bu baax xam nga ce qui se passe kon bu ne la moom day neexal moom moo koy neexal day wax lu ko neex wax dëgg yàlla fii ñun kenn ku si nekk si ñun mën nga jàpp ne man maa koy neexal. non man de neexalul sama côté man man man aussi mun naa ne Koungheul tey maa koy neexal. wala maa koy sama tim ñoo koy neexal parce que sax loolu moo am parce que ñun ñun suñu tim moom ñoo ñooy neexal quoi. waraay teg mooy neexal biir bu ngeen. mooy neexal mu doon ñaari neexal yoo xamante ni bu ko boolee nekk biir bu ngeen. peut-être bu ngeen neex. Ah. ñoo tey suba ak ginnaaw suba yow dañ koy. mais est-ce que xam nga ni ñaa gaynde dëgg dëgg gaynde gi mu ngi ci moom quoi mais gaynde day neexal. ñoo la gën a xam ne ñun dañuy neexal barki Serigne waa dañuy neexal te lu ñuy def dafa dañ ko mun quoi tamit. léegi léegi moo waral sa sa ay baar ma ciy dégg à part magnifique xaw ma am na loo expliqué waaw mos a gëj nga def it lan moo waral loolu lan classe bi xewoon parce que ñii nee nañ ñaa ñaa gaynde peut-être sedd moom moo doon back to back ak saaw moom mu ñëw jël combat bi lan la lan loolu aussi man soxla naa ci ay leera waaw man loolu sax dinaa si man tamit dinaa sawar parce que gars yi bëri dañu foog man damay jël défense défense Zed wala genre mais Zed moom si boppam mun na défendre boppam parce que li muy def man daaxuma ko keneen ku koy këcc beeg tu daaxu ko lu muy def quoi man lu leer ma parce que ñu doon travail mais euh, tey lu gën a indi loolu gis nga normal man fi ma far man damay wane ne foo laa far carrément man loolu mooy sama problème day xañ effectivement man nag fii laa far man biir teg jéego laa far moo tax gis nga tey bu la neexee boo boo CP bii teg yow nga ñëw Z nangam man sama yoon nekku ci quoi mais bu laalee sama team rek man day mel ni man dama ci centre quoi te soo seetloo genre mu def yooyu da si laal team bi bu si laalee bi rek man damay man damay sentir man day mel ni man team bi man kese si nekk. te te te tamit sama boobu ngay wax du du Z kese la si laa man laa na ma ci soo dégloo baari xaaral gis nga ci sa bopp ah waaw parce que moom dafa indi leeral nga ñëw indi lëndëm souvent leer lëndëm ah waaw kay waaw ñoom yaa précis ci son bi yaa ngi naan ko xaw ma ci man nga jëlee safara kon xay xalam du ma lakk xaw ma am na noo ko expliqué ci biir peut-être yaa jàngal saaw rap parce que moom nee na moom moom moo leen doon jàngal ci wàllu musique quoi moom moo tax ngeen changé parce que bu njëkk na leen ngeen doon tegee quoi kenn xamoon nu ngeen di woy peut-être man damaa expliqué foofu. léegi nan la demee noonu kii ni sa morom maa la wan yoon bi kii naan maa la wan yoon bi kan moo réer. Mm, man xam nga tey am na loo xamante dañ koy wax man tey su ma xamee saaw Z moo tax mu xam ko te mën naa ne sa Koungheul tey ñu si bëri bu ñu xamee saaw tey euh, bu bu dul Z tamit joué na ci lu bëri quoi man tey wax dëgg yàlla xaw ma woon kuy saaw suma xam koy saaw si si si si àdduna mais. Euh, peut-être moo ngi ànd ak Zed ñëw après Zed boole ko ci team bi ñun tamit parce que ñun ku ñëw ci team bi tey lu ñu leen njëkk wax mooy yow yow mu mujjee ñëw ak ñun ñu fi njëkk ñoo yem ko ñun tamit onze heures mooy loolu noonu mais quant à affaire jàngal fii kenn jàngul sa morom leen mais tey su man nekkee di liggéey yow sax man am na am na am naa droit quoi boo nekkee ci loo xamante ni kuulul man la noo kuulul mais est man tey sañ naa dem si Euh, par exemple quoi parce que sekk naa ko moom su ma neexee ma tudd turam est ce que dem ci prince quoi ne ko muy génnee son est ce que daf may ñëw wan ma ko wala est ce que bu bëggee génne son buy répété daf naan ma ñaa maa ngi répété ko est ce que naa ko sañ naan ko faay bi bu ko def xam nga lan laa mën ci moom bu génnee son ba pare man ko chet bu affaire bii di boo ko defee woon nii lay gën a fekk loolu too tax na parce que mais tey bu fekkee ne man ak moom tey am naa ci moom accès boo xamante ni wala moom sekk naa ak moom wala bokk naa ak moom tim mën naa ne ko ah euh, boy lii nii changé ko lii boo ko changé def na loolu la rek c'est ça loolu la ñuy wax kon peut-être bu dee ne eh, changé na si ñun kon loolu la rek. Ah, moom doon ngeen def lii mu ñëw nii ñaar. Eh, waaw man tamit man tamit buñ ne lii ñu ne non lii boo ko defee woon parce que boobu boobu mu ngi biir tim bi mais est-ce que ba mu génnee tim bi léegi bu génnee sang yëguñ ko. ñun man bu may génnee son du ko yëg man jusqu'à présent ñun noonu la ñuy doxee quoi man tey su ma génnee son damay teg bi teg consulté gars yi ñoom zing zing zing moo gën a nekk booy suñu tim te zing zing sax day avem day compter si son ñu teg teg na ko waa lii mu ne noo ñaa lii tey billaay wallaay télé laa nekk di wax quoi moom am na genre classe yi des fois dama bind yoo xamante ni dafa may leer na day déborder mais moom mooy travail de groupe bi am sens quoi moom daf naa ma génneel lii. zing tey dinañ ma man dina change si man quoi parce que dina naa kii bett nañu quoi. su est-ce am na ay bees nañu parce que souvent dañuy waxante ay waxante lu ñaaw moom. <laughs> waaw bu xasee bay am moom bu dee ñaaw na ñaaw rek. non waxante bu ñaaw mais ça dépend ku nekk ak ni ngay joobee euh, normal tey mën naa loo benn affaire man bu la neexee mën nga dem consulter samay son yëpp sama son saaga mosoo ko si dégg quoi mën nañ def nag ay tout genre loolu quoi foo lay nekk foo lay yem te tey jii nii gisuma ku nekk si gémmi fii nii. ku ma mën a changer loolu noonu maanaam ki tax man ki ma wala nga wax ma loo xam dina tax si sa woy ji wala non non parce que man man loolu mën naa code mën naa def ay pic genre ay tigo tatu genre yooyu <laughs> tigo tigo tatu waaw tigo tatu bi waaw. tigo tatu moom xam nga loolu ay tigo tatu tigo tigo tatu man du ma nëbbu nag quoi parce que tamit yéen leer na ne foofu noonu ñun teg classe nañu quoi ñun tamit. man su may def repli tamit du ma ragal quoi wax fa dëgg yàlla mais ne duma fa nekk di tudd tur kii wala nang mais am loo xam su ma ko waxee automatiquement di nga xam ne lii pour kii la tey tey tey sound bi Tigo Tatou Tigo Tatou benn gaa la boo xamante ni day tatuwaal maam léegi day yàq der quoi genre day day yàq. ñëpp buñ ñëw kii gars yi ñëpp kii da ngay wër di wax lii pourquoi ñëpp même même même classe ah ngeen di bindee même yàq der bi même ni ngeen def la ma waral lool. xam nga tey imagine tey gis nga ànd. en en général bu bu tasee rek après yu si bëri day am quoi mais ñun yàlla sedd nañ loo xamante tey si game bi quoi duñu duñu tey duñu xam lépp di ko wax di wax lépp wax dëgg yàlla ñun suñu niveau foofu noonu na foofu quoi romb tey man ak Zed ànd neen suba ñu séparé xam mooy wax li ma xamal Zed non man loolu wax fa dëgg yàlla su ma ko naree def mooy loolu man je préfère affaire de moo nag affaire de euh, game game la quoi man su ma si nekkee. mun naa mun ma dama lay classe te nga koy déglu di kontaan maanaam comme neexal bi may wax maanaam dañ lay classe sax ngay sentir ne day neex parce que classe boobu noonu yow da koy sentir yow mu yow mu may classe da xam ne lii daa neex kon xam nga kon ñun ñoo koy neexal. nice ba tey saaw ni mooy neexal teg jéego ni mooy neexal ñaagende ni mooy neexal temps bi mu ngi dem buñ gënee xuus ci biir mën nañ fi fanaan parce que yaakaar naa yéen ak saaw benn histoire la boo xamante ni. lu ñu gën a dem ci kanam peut nit ñi daan dem ba mun comprendre mais ak nu mu fa mënti demee bu fekkee dañuy rab muy classe nañ ko teg ci showbiz quoi ñu ànd mu rafet mu naaj bu fekkee loo xamante ni lu ñu war a jox publique bi la ñu jox leen ko ñoom kese ñu moom suñu biir ñu mu rafet quoi ñoo mën a jëriñante euh, bala ñuy jeexal comme que li ñu desee ci temps bariwul nga jëm ci benn événement boo xamante ni dañuy gis track bi muy daw que da ngay teg concert loolu naka la nar a demee la lan la nit ñi mën a séentu ci jour ba. naka nga koy waaje lan ngay programme ak après loolu lan la ñaari di waajal. waaw waaw loolu moom waaw dinaa dinaa si doon ñëw quoi parce que événement la boo xamante ni maanaam ren moo bëgg nekk deuxième édition bi quoi parce que defoon nañ première édition bi ndéwénal show mooy sur la ndeme korité bi quoi boobu defoon nañ ko kon dañ koy defaat léegi xam nga tamit tey de quoi qu'on puisse dire tey ñun toujours ñu ci game bi quoi luy lu may wane na man dama koy neexal à chaque instant mooy tey normal man raaruma ko maa ngi génnee son maa ngi def clip te lu si gën a li gën a li gën a jafe mooy man sama sama compte tey boo fa duggee li fa nekk si audio bëriwul quoi waaw loolu yëpp travail liggéey groupe moom moo ko may tey tey su ma takk tey su ma su neexoon sama boo xam damay damay yuuxu rek sax su ma ma dama ko def clip parce que tey waaw. Zinga mu ngi fi di produire lu nice. koy nuyu de passage mën nañu koo xamante ni muy góorgóorlu ah loolu rafet waa nice. quoi te si ñun la bokk tey xam nga kon mooy loolu noonu tey ñun ñu ngi génnee sound raaru ñu si game bi quoi tey tey suñu son bu mujjee génne Tigo Tatou la non du Tigo Tatou sa Tigo Tatou da nga génne mais si projet bi la bokk tey génne woon nañ benn projet récemment moom terminus la tuddoon quoi terminus de mixtape bañ ko génnee yàggul génne ko def ay son def mu am ay featuring yooyu yëpp négligation bi moom moo tax ñu dugg si bitim bi mais dama si doon ñëw ah ok waaw mhm. boo xoolee nekk nekk ñëpp ci leader yi def nañ ay projet yéen amoon na yéen ay da a da ngeen a toogoon dem non non du du financement de yàlla xam ne fii ku si nekk yaay finance sa bopp sa sound mais gis nga maanaam loolu mooy wane ne ñun suñu ñun loolu lañ bëgg quoi dañ bëgg koo xam tey tey suñu tim bi Euh, SMT moo defagul projet te te te mu ngi ci euh, ñoom ñoom ñoom Massafoul Yankob def neen projet Zod def na projet mu génn duguti gi Massafoul euh, Chinua Achebe bi mooy ñu Massafoul après sama projet moo si topp moom mooy moom mooy ñun dañu am procédure de travail quoi maanaam dañuy def kii année bi kii la wala mois bi ki mooy ñëw après kii mooy ñëw après kii mooy ñëw te bañ ko defee tey macha tey ku ci nekk tey projet ba mu génnee tamit. bu dee bu dee du sound yëpp ngay kiifee tamit dina am yenn sound yoo xam ne ah bii moom kii na bii moom kii na quoi kon kon nga xam ne ni kon travail ñun suñu teg jéego boobu kon ñun ñun loolu lañ si bëgg quoi tey ku fa ñëw euh, ñu changé si yow lu bëri loo xamante ne dina la permettre yow nga créer ay dara quoi parce que di euh, di nga ne ah man sama morom ñu ngi fa di def projet nangam tey artistes fii ñu si bëri ah bu du artiste teg jéego yi ñu si def projet man waxuma génnee sound de projet laa quoi tey nga tuddee ko mixtape wala nga tuddee ko EP wala album ainsi de quoi tey peut-être si si ñun la gën a bëree quoi tey ñun. ah peut-être ku nekk sa système de sa de faire mais man dama jàpp ne amul du question am mën a bind parce que yow yaa ngi génne sound am na yoo xamante ni chaque chaque chaque kii chaque un mois mën nañu génne deux single loolu yow boo sacrifié woo ñun tey fii artistes ku si nekk euh, jaayuma artiste Koungheul mais artiste Koungheul ku si nekk un mois mën na see bind lu mat plus de dix son lu ma leer nañ parce que talent bi muy si muy si ku bokk ci ñun nag ku bokk ci ñun yëpp wallaahi lazim loolu moom leer leer na ma quoi c'est daa amul opportunité yooyu rek mais tey jii gi nga boo amul boo yëgoon am na les mooy qu'il faut konoon non dépassé nañ fii quoi. Euh, ndewinal show ndewinal show waaw ndewinal show comme amee woon rek. di invité gars yëpp nag wax dëgg yàlla dina wax ne deuxième édition ñun moom dañaa bëgg sax édition bu ñëw rek dàq beneen bi quoi waaw parce que parce que parce que tamit bii moom am na daal lu bëri loo xam ne ñu ngi koy wàcc suuf quoi parce que xam nga tamit yoon la nga def projet bu projet bu tool noonu quoi def gis nga des fois ñun ñoo koy neexal wala ñun ñoo am idée yi nga ñun tey mën naa tey ñun ñoo man man bokk wala gisuma ko fii bokk man Koungheul man maa fi def projet pare def ay t-shirt di ko jaay. mayun ma dara genre mais maanaam maanaam ñun toujours dañuy wane yoon mi que ne ñun affaire yi mën war nga see mën am dara quoi euh, lépp lépp lépp système la quoi parce que tamit tey tey su ma génnee sama sama lan laa dama koy dugal YouTube rek partager le lien nga dem déglu après man est-ce si am dara. non léegi ba ma ko defee tey yow sama gang ma ñëw na la normal tey sama sama comment dire sama produit bi génn na t-shirt euh, bi nangam laa koy jaay nga jënd ko parce que sama gang nga léegi après loolu revenu yooyu ma di eh, sol ko effectivement ñaala ñaala la produit bi ah, lii produit bi la te effectivement noonu ko defee wàcc sur le terrain jox ko gars yi gars yi tamit jàpp ci wax dëgg yàlla jënd nañu t-shirt yi quoi di di di di wax gaa yi ko jënd yëpp maa ngi leen di féliciter ci affaire boobu di leen wax di leen jëfal ñu jëndul woon bëgg jënd aussi tamit mooy loolu di leen wax ne affaire xam ne ku nekk fii nga toll si ñun quoi wax dëgg yàlla léegi mooy loolu yëpp maanaam dama bëgg wax ne loolu yëpp peut-être ñun travail de bi moo ñu koy may quoi esprit groupe bi yooyu si biir group bi lay génnee quoi parce que tey man am naa sama xel kii am xel kii am xel après bi ñu ko boolee dina am ba si gën quoi looloo tax man travail de groupe mu gën ma neex quoi parce que si nekk di nga si am di nga am intérêt boo si gagné quoi loolu la parce que bu ñu taxee si groupe bi ne ah nangam nangam man leen ah dama bëgg a génne dama bëgg génne euh, sama projet bu mu génne man nii laa ko bëgg a defee kii na ah nii laa bëgg a defee xam nga tey gars yi xam projet <laughs> bàyyi ñaa ñaa ñaa ñaa artistes yëpp lay def ak fit bu sax sonn ah bien sûr que oui a soxlaa bu ñu soxlaa def ko def ko léegi xëy problème bàyyi ñun nee la man Koungheul fii ñëpp laa mun def ak euh, featuring quoi man amuma problème boobu noonu parce tamit problème bàyyi li wax saw ñu ne moo amuñ problème yow saw yow saw am na si loolu loolu si game la rek tey tey tey tey mënuma toog deux jours wala journée la mu mën a saa duñu déggante kon nga xam ni kon amul problème yow des fois da ngay dem place euh, fekk ma kon kon xam nga ne kon problème amul quoi parce que fii yenn yi affaire yi xajul Koungheul quoi wax fa dëgg yàlla. Mm-hmm. effectivement comme ni nga ko waxee toujours toujours ni ñu koy defee si suñ kanamu sama kéji kéji wërsëg parce que ku si nekk loolu ngay wax. waa Kéji Kéji ah léegi noonu lay doon Kéji biir xibaaru Bambouck tamit ak chaque jour dafay dooleel Kéji. Hmm. normal Diouf mission toog teg. Hmm. lépp ci dooleel game bi nga xamante ne moo nekk biir Kéji. Hmm. ñu ngi ci fin bi nekk ci jeexantal bi. ma lay bàyyi nga nuyu ñi nga ak ñuy seetaan xibaaru ki nga xamante ni bëgg di wax gars di wax waa xibaaru Bambouck maa ngi lay rafetlu affaire bi ak yow di wane na affaire bi wax dëgg yàlla lii nii. ñun day jouer si ñun lu bëree bëri quoi parce que ñun artistes yi tamit des fois dañu bëgg visibilité genre mooy loolu kon leen boo leen amee idée bi di ñëw si artistes yi di leen invité genre ñun def ñi def ñi ñu ñëpp waxuma waa teg jéego kese de waa teg jéego waa liberté waa omnimédia gars yi ku si neex naka jàppee naka jàppee programme boppam quoi te te ni ma la ko waxee nii di nga xam ne noonu laa koy doxee parce que man li ñu si bëri am naa sekk naa ñoom loolu ku si nekk dinaa su ma la war a woo dinaa la war a woo su ma war a dem si yow dinaa war a dem si yow quoi. am na loo xamante ne raaxul yëpp ñoo koy defal ah. xam nga loo war a tëjee. <laughs> lan lay rapport yëpp di def noonu. ah ok da daa su freestyle waaw mun na nekk nag. yow am a soldier fokk yu laay jamal su may ennemis every day every time man ngi gis si mbedd mi. Faris man nem ba foo ma laaj ñu ne moo ngi nii ni kon waratu man na nga am sa temps ñenn ñi te mën a fen du li nga dégg nett lii ñun fu ñu muntu dem da fit ak jom moo nu wéttalee taaj man yi wax ko ñu ne si suufu keer man ma nekk bandi moom gën a toog di yàq der wan ma ni nga mel bul ma nëbbu sa jëf gën a doon criminel di mat di ëpp bul ma wan bul ma nëbbu bëtu ca feet ñu mara nga bañ yow daasuraay sa boy soldier ñaa génn ful Yeah. xalaat da ci biir biir mm-hmm. émission toog teg ngeen ci doon ànd ak normal Diouf may bégewaat di leen siyaaraat di jaajëfal képp koo xamante ni moom ñu doon seetaan avant muy jeex mooy nuyooti mention yi borom Amérique salal man la jël la ma koy ñaanal yàlla doolu ko jàmm sama grand la sama xarit maa ngi siyaar ñëpp yaa ngeen jëf